Uh, asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu ok uh, Abbas ñu ngi lay nuyu di la siyaar waaw ci laaj boobu moom li jëm ci wàllu julli ki ayit naka lañ koy defee pour uh, mu gën a yaatu ci mbokki taalibe yi ñëpp xam ko ndax mooy que julli la goo xam ne ñaari rakk moom lay doon ñu ngi koy julli ci waxtu yor-yor mm, julli gi nag du am nodd du am du amit liqaam bu ko defee ràkk bu njëkk bi njàpp tamit da koy jiitu comme ni ngeen ko xamee ndax sart la ci julli bu ko defee kii imaam bi nga xam wala ki nga xam ne mooy jiite bu jiitoo ñeneen ñu topp ci ginnaawam li ñuy jàng li imaam bi di jàng mooy liñ ci taamu ci ci kii mooy ma tàmbalee ci kàbbar wala wala li kii bi takbiratul ihram bi muy kabari ñaari ràkk moom lay doon Eh, rakk bu njëkk bi day kàbbar juróom-ñaari yoon lay doon juróom-ñaari yoon lay wax allahu akbar kàbbar mooy nga wax allahu bar sunna la ci bu njëkk bi ngay yëkkati sa loxo waaye ci yeneen yi eh, mën ngaa bàyyi sa loxo rek di wax allahu akbar bu la neexee it nga yëkkati ko du ci wàññi dara eh, kon rakk bu njëkk bi boo waxee allahu akbar juróom-ñaari yoon nga koy wax bu ko defee nga jàng faatiha ba mu jeex saar boo ci teg baax na waaye taamu nañ ci lu mel ni sabbih isma rabbikal aala muy suratul aala ku ko man nga nga wax ko ku ko mënul nga nga taamu eh, nga nga jàng saar bo man bu ko defee bu jeexee nga rukkoo eh, wax subhaana rabbiyal asiim ñett yoon jàpp say woom siggi wax sami allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd daal di sujjoot dem ci suuf eh, boo sujjootee subhaana rabbiyal aala ngay wax ñett yoon daal di toog wax rabbi xfir lii bu ko defee nga sujjootaat daal di waxaat subhaana rabbil ala ñett yoon daal di jóg taxawal ràkk ñaareel bi wax allahu akbar juróomi yoon bu ko defee jàng faatiya bu jeexee nga def ni nga defoon rukkoo daal di sujjoot daal di euh, euh, ma ma dellusiwaat boo jàngee faatiya ba noppi foofu it euh, taamu nañ fa nga nga nga nga nga yi nga xam ne moo nekk ci suufam nga nga jàng ko lu mel ni wal fajri wala yaalin ashri wa shafi wal wal watri danañ ko ci jàng wala wa shamsi wa duhaaha comme koy defee ñun ci waa waa Touba wa shamsi wa ku ko mokkal nga jàng ko wala wa duha wal layli iza saja maa waddaaka rabbuka wa maa qala yu mel noonu saar yu mel noonu daal yëpp manees na ko cee jàng mhm. wa illaa saar boo mokkal nga jàng boo boo bu saar bi jeexee faatiya bi ak saar bi nga nga daal di def ni nga defoon mooy rukon bi ak sujjoot euh, bu jeexee nag euh, ba nga def taaya taaya mooy taxiyaatu lillahi ba mu jeex teg ci allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ba mu jeex nga wax asalaamaaleykum euh, bu ko defee nag bu fekkee ne dangaa am ñoo jiite comme ci kër yi la ñuy jullee ku ci nekk dénk sa ña nga nga xam ne yaa leen yilif wala kenn ci ñoom ka ca gën a gën a jàng gën a gën caa ragal yàlla mu jóg soñ ñeneen ñi ci des ci lislaam Euh, soññ leen ci bis bi euh, ni mu amee solo euh, ndokkeel leen ci tamit ñaan yàlla subhaanahu wa taala ñaanal ñaanal ñëpp njëggal dénk leen ragal yàlla dénk leen topp yàlla dénk leen dimbalante loolu moo ci gën a am solo loolu daal noonu noonu noonu lañ koy defee bu ko defee it soññ ci jéggale ndax bisub jéggale la tamit jéggale ñu jéggale balonte ak nemmeeku wante bu ko defee tamit ak ak ak di rattaxal diggante yi koo gëj a dégg nga woo ko siyaar ko ci téléphone comme gise bi mënta am lool sax aada la joo xam ne dañ koy def ginnaaw ci bisub it euh, loolu daal moo ci gën a am solo incha allahu taala baax na jërëjëf ak yàlla na suñu borom defal ñu tawféex bu baax a baax a baax incha allah